gi nu jokk mu nekk ndaanaan loo xam ni dootuñu ko présenté ci réew mi et puis jël musique kese mm-hmm. topp carrière am def musique normalement li musique laaj mm-hmm. jàng musique xam musique élage fii Sénégal miinuñu ko mm-hmm. xamuñu ko malgré ñu ngi koy wax la chéri de la Médina le Neymar de la musique sénégalaise mais duggal biir Mali duggal biir Guinée sous région bi dem ci nga laajte kenn mooy Elaj Keita te munoo wax waxi amour woo Saint-Valentin te woo ko waaw Elaj salaamaaleykum waay waaw waay noonu. il ma taxal il ma taxal micro bi. El Hadj la wax. waxaatal nga ne yow la waxoon. ma ne Abba kontaan naa ni nga ma dugalee te sama yaram mi ngi daw parce que je suis sensible yow xam nga lool. <laughs> maa ngi kontaan ci plateau bi franchement kontaan naa teewaat fii sama kër TFM ah, di bëggee ah, yéen ñi toog ñëpp. franchement su ma limee damay juum kontaan naa ci yéen waaw. ñu ngi lay bëggee bu baax. est-ce que xam nga ma naan waay waay waay everybody I was ba ne kii waay <laughs> ñu teg benn clip ah. yow mën ngay illustré ci suuf rek amuñu clip am benn bu ñuy teg mais am na bu bees bu mujjee génn bopp moom xam naa ni euh, boo ko tegee man nga koy may ma may ko ki nga xam ne mooy borom diyaay euh, ku baax ma nga ca Marseille toog jàpp ñàmburam man moom maa ko may El Hadj yaa ko way waaye maa ko may ah <laughs> nga ñu illustré El Hadj Elhadj tey jii bu ñuy wax ci amour hmm, wax Saint-Valentin dañu lay wax ni nga bëggee daba réew mi kenn waxatu ko ni ko ragalee kenn waxatu ko nam la taxee soppi changer sa numéro lu ne nga bàyyi ko kenn waxatu ko te Elhadj Saint-Valentin bi. ba pare bi mooy fausse bi mooy première Saint-Valentin. ay après bi mooy sa première Saint-Valentin. waaw bi waaja. waaw sant di dàqanteeg moom ci néeg sol ay feram di lëmba. <laughs> Eh! ay waay kon tey Ama dina ko kii le treize février le treize février après kay baal ma yaay dama ma El Hadj aje li mooy kuriku dafile dafile mooy yooyu noonu ngeen ko nar a dundee tey. waaw parce que mbëggeel mooy lépp yàlla moo ñu fi wàccee pour ñu bëggante boo amee nag koo xam ne yàlla boole na leen. da da nga koy bégal rek te man dama nopp sama jabar. am na loo ko wéyaloon am na loo ko wéyaloon temps yële ma la invité woon tey ko mayaat bi muy soog a takk jabar am na loo woyoon fi eh. loo woyaloon dama. lan la ko way lan la ko way da ko way ci olof wala da ko way ci lan. moom moo ko jaxase ko. fàtte na ko kii day wër di way rek wayu mbëggeel moom maa day wër di way fàtte na ko ah, non wayu mbëggeel waxin kii xam naa jabaram warul mer ndax mën na wax bu neex te mhm. vraiment dafa sensibiliser à travers ses chansons sax c'est vrai ça c'est vrai bàyyi way bi yow El Hadj fi toll nii xam naa li mu mën a def pour la suñu sensibilité ñun ñi nga xam ni ñun ñëpp ku ci ne ci ñun am na koo bëgg. El Hadj day dugg ci wayu bambara. parce que loo ci way rek. day laal ay xol nga may ñu ci lenn balaa ñuy dem ci élément bi nga xam ni moom it mbëggeel lay wax ñu ñëwaat yee yeggal suñu waxtaan ak yow kisilinke dungama aka kende kisilinke dungama Jabatamba kalulu akadintinye jabatamba kalulu akadintinye aye aye aba ye sukiri ife ya mutane ya baka kene so بالك كرا يا متلي يا بغاقل كيسلين جدل أغاقل كيسلين جدل كما كاكل mën nañu ko ñu itasu leen yéen la tax may pare yow pare goo de itasu leen ay lii moom euh, faa ma mayati dara faa ma mayati dara vraiment euh, il est il est il est il donc foo ko rek foofu la gën a mën a te bu sikaree balaa mu toog nii balaa muy jug fi mu toog nii dina sikar euh, Sam euh, merci beaucoup sant naa la ci euh, iri bi ma iri ba ci yow daal mi xëccal ma <laughs> Aziz maa ngi lay kontaane bu baax Aziz Gaye donc balaa sikaral tuuti ñu yëg ci suñu bopp Elaj hmm, hmm, Koité waaye balaa muy jug dina wax ci sénégalaise ah, coow li ak fi mu toll nii te kenn dégg ko ci loolu tamit dinañ ci waxtaan balaa may jël ko spectacle. ay te woote leen woote leen woote leen ndax su ma ñëwee léegi damay jël euh, benn appel léegi di di fan lañ jëm ci mbëggeel. ah ñu ngi jëm nag ci ku ku poñe réseaux sociaux yi. mooy kan. Sali Babel Thiam defe naa ñëpp xam nañ ko muy jigéen bu ma naw ndax bi ma ko fekkee keroog damaa kontaan Abba moom nag dañu dem waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy sëy ak réseaux sociaux yi mm-hmm. parce que souvent dañuy wax waa nit ñi toggee comme memral li mu wax toggeetuñu ay wax la ñuy toggee di vocal gauche di vocal gauche mais ku nekk am nga sa objectif si réseaux sociaux yi Abba nañ dem xooli Sali Thiam daal di dellu si léegi ci plateau bi waxtaanee ko maa yëpp man la Sali Thiam ñu gën ma xam ci Sali Babel réseaux sociaux yi ni ma ba mu ba mu ko mi ngi jugee ci Snapchat parce que Snapchat dama ci daan foox comme nii rek fi mu ne nii moom fi ma ci toll nii nii tembe tembe dama ciy liggéey bu baax sa loo xamante ne nii macha allah nitoon ko am bëgg koo fésal day jaar ci Salibabé pour loolu gaaw fés di ci publicité di ci wax ay mbir di ci def ay mbir di ci waxaale ay gros mots tamit. bientôt quatre ans de mariage. réseaux sociaux ak sëy du benn sëy dafa sacré réseaux sociaux Snapchat publicité yi loolu sama. ci sama liggéey la mais sëy sama vie privée la sëy bi sëy bi la da nga koy sëy normalement teg ko ci temps waaye liggéey bi bu jotee monsieur da lay bàyyi comprendre la bàyyi la nga def ko ni mu waree te comme que daf maa takk fekk ma may ambiance ma nekk nit koo xamante ni nii laa mel 24 heures 24 heures sur 24 lii laay dund donc bi ma takkee moom it daf ma koo yombalal empêché ma ci dara bàyyi na ma ma compliqué continuer def samay publicité di saaji te jotewul ak dara sama sëy tubaar fakkaat macha allah sax man Sali Thiam ni may concentré woo ci sama sëy su jeeg deful dara amul benn occupation te concentré wul noonu ci sëyam parce que yàqaluma dara maa ngi def lu ma war togg añ togg reer toppatoo sama jëkkër toppatoo sama lépp sama dara manqué wul macha allah ki may sëyal xam na loolu. réseaux sociaux bari bokkul ku nekk ak li la ci tax a jóg ku ci mel ni man ambiance moo ma ci tax a jóg waxante ak xale yu lu baax souhaité nit ñi joyeux anniversaire fësal njaay jàmbur di bàkk samay géer di ci def ay yëf bokkul ak ki nga xamante ne leneen moo a jóg ci réseaux sociaux parce que man xam nga ni kooku kon li muy def ci réseaux sociaux leer na réseaux sociaux nag day defar sëy waaye day yàq sëy ku ci mel ni man ak ñi may suivre bëri na ñoo xamante ne nii man la ñuy seetaan 24 heures sur 24 di roy ci man ma leen di conseiller ci seen sëy di waxtaan ak ñoom parce que man dama bëgg jigéen bu brave yaa ngi liggéey yaa ngi def lépp mais teewul aussi da ngay jàpp sa jëkkër sëy ak moom parce que ne nii Snapchat ak réseaux sociaux dafa bokk nga seetaan keneen ak keneen mbaa nga dugg ci internet bi mbaa nga seetaan direct TFM euh, sa téléphone ci biir YouTube bi ça dépend léegi nag loolu noonu booy seetaan ku mel ni Sali Babel da ngay gën a téye sa jëkkër parce que toujours ci sujet yu muy dox mooy nu may def ba sama jëkkër gën ma nopp nu may def ba mu gën ma fonk nu may def ba mu am sama kersa man ku ma xam-xam ne chaque jour damay dund mbëggeel fu ma toll ki may sëyal maa ngi koy wax lu baax maa ngi xool ci li ko neex ma ciy dox lu guddi gi di gën a xaaj ma koy gën a nopp lu bët di gën a set may gën a sàjj di gën man damay dund toujours Saint Valentin naa ko tënk tey damay conseiller sama moroomu jigéen ñi ñu góorgóorlu gën a takk seen digg gën a jaajiwaat xam ne lu waay def ci lu baax ci sa sëyukaay doyul sa jëkkër ji ngay sëyal loo ko jaamu doyul loo ko déggal doyul loo aw ci ay am doyul parce que nag sëy yombul te sëy neexul waaye boo góor góorgóorloo rek mu doon lem te boo bëggee ki ngay sëyal wek la jox la bopp lool am sa kersa da ngay umb suturaam koo umb suturaam mu umb sa sankal donc euh, kooku mooy euh, Sali Babel moo fi doon wax lu foor naan kuñ ne da nga am ñaareel yow yaa ñaareelu Sali Babel tallalal nga tàll ñu yóbbu warugar bi xam naa dañ naan kii la rek ñu tàll wax na dëgg nag wax na dëgg Abba mm. mais vraiment nit la koo xamante ne conseil yi muy joxe ci wàllum ménage ci wàllum sëy ku ko jàpp war nga mën a am li nga bëgg ci ci sa sëy parce que mhm. moom malgré tout mi ngi ci réseaux sociaux yi mi ngi ciy liggéey mi ngi ciy def euh, li ngi ciy wax ay gros mots tamit parce que noonu lañ dëkkee ak moom mais teewul ko war ci biir këram mi ngi koy gérer mi ngi nekk femme de ménage bi nga xamante ni moom la war a nekk mi ngi nekk femme au foyer mi ngi jàpp jëkkëram te mi ngi comme li muy wax mi ngi jàpp jëkkëram di sëy moom correctement donc comme li mu wax rek ñun ñëpp nañ ko déglu ah jéem a roy ci li muy wax ah te moom it mu gën a góorgóorlu ci li nga xam ne sëyam la mi ngi ci dugg mais réseaux sociaux itam bu mu ko bàyyi bu mu mi ngi ñuy wéttali mi ngi wéttali Sénégal yëpp te xam naa ni bu soobee yàlla abaa dinañ def ak moom yeneen yeneen yu gën a yu gën a doy waar mais yow kii mais na xale yi sëy non nañ sëy ah, parce que abaa hmm. gis nga dañuy wax waxu sëy mais tamit Saint-Valentin bi nañ ci profité de parce que wàllum góor ñi nañ ko waxtaane ak jigéen ñi infidélité bi ci dëkk bi nañ ci wax diggante infidélité bi li ko waral waaw nañ ci wax li waral infidélité bi mooy hmm. biir kër yi am na luy metti xale yu góor yi ci biir kër yi ba ñuy génn ci kër yi di dem ñi invité ñëpp du ñoom ñëpp loolu doy na neex bi am na dañoo mer am na luy metti xale jigéen ñi ci biir kër yi te mu ñoo génn ñu toog di ko muñ wallahi non a a war a toog muñ yéen bi ñu leen yàpp yéen la ñuy yedd yéen la ñuy yedd naan leen muñ leen naan yéen saay góor yéen saay góor dina yor këram yor soxnaam yor ay doomam yor léppam duñ ko toppatoo nuñ ko war a toppatoowee ci biir këram mm. lu gën laa lay wax nii mm. yenn saay góor énervé ci biir këram mënta maye baat ndax day xool ay doomam mënta def nànk parce que par yenn saay ñu may la soxna ci biir may gi ñu ko may mu ñàkk yaayam ñàkk papam yaay papam yaay yaayam yaay ñëpp te amul lu la neex ci moom munoo ko wàcc waaye di nga génn nag moom sa bopp parce que boo amul ci kër gi jàmm ah, waaye lépp communication la sa partenaire mais lenn dafa am si infidèle ah, in unfaithfulness infidélité lépp looy def defoo ko sa partenaire sa bopp nga koy def. loolu nga foog. of course. te am na ñoo xam ne abaa infidélité bi ci deret bi yow yaay dem dañoo infidèle rek yow yaay na ñoo xam ne yow yaay que li ngeen comprendre mooy infidélité ci nit la ne. nit mooy kat ay kii defal na ma nii wala defal na ma nee ci nit la nekk. boo tàmmee infidèle. tàmm ñàkk kersa tàmm gaaw a bàyyi nit boo infidèlul en tout cas daal en tout cas boo yoree jëkkër da nga koy toppatoo ni man de am naa fulla gu toll ni boo ma man mënumaa làqatu du ma nëbbatu man bu ma nekkee ci lu baax ñëpp yokk bu ma nekkee ci lu bon ñëpp yokk parce que man nit laa ko entier man bu ma nekkee ci dara damay def lu ma neex man bu may sëyeeg yow nga wan ma ñàkk fayda gu toll nii ma wan la ni réew naa réew gu toll nii te am naa fit gu toll nii. yow yow su ma wanoon dara moom laa yóbbu week-end. yow Faal yow yow abaa <laughs> ah, eh, eh, nee na ma noppi nee na may noppi kii laay waxal. <laughs> non non non yow kii laay waxal. man li ma bëgg a wax mooy. mooy am na jigéen yoo xamante ni ñu ngi servir ay kër di def lu nekk di def lépp ba taxul seen jëkkër toog am na góor yoo xamante ne ñu ngi muñal seeni jabar lu nekk ci biir kër gi ak yooyu taxul seeni jabar def li leen war foog naa is vice versa euh, ñu gën a jàppalante waaye benn kenn amut raison ne lii moo tax may infidèle loolu acca euh, nañ dem ci <laughs> <laughs> waaw ñu ngi jégalu euh, mais El Hadj fi toll ni wax ñu say projet ak son bu bees bi nga xam ni moo génn di borom di yaay xam naa ni maay man ak Awa Gaye ñooy tàggoo ak El Hadj yéen ci waaw projet yi nag ñu ngi ci liggéey bi na borom diyaay nag dañu dafay sunu xarit di suma lépp macha allah yàgg ma jàppale mhm. ma xool ay maamam rek tagg ko ci waaw parce que booy way ay nit moom par exemple da danga koy jaarale si circuit bu leer way dëkkam fi mu dëkk parce que moom tamit mi ngi def lu baax fi mu dëkk muy diyaay macha allah muy xale bu ndaw nekk vingt cinq ans xale bu ndaw la nekk sama morom ba pare di ma jàppale moo tax fale ma delloo ko njukkal te fii ku ci nekk am nga koo xam ne defal na la loo xam ne war nga ko mën a way noonu la demee ma way ko ma way ko may way ci associé si saawaane muy suma jigéen suma lépp sama xarit waaw suma lépp suma lépp waaw dañ maa bëgg te yàlla tax mm-hmm, mm-hmm. moo tax ma laaxaale leen ci laaxaale ci sama xarit yi nga xam ne dañ may sentir bëgg ma munuma lim ñëpp ma ma ma wayaale leen ci parce que tamit benn heure bi nii am na ku la ku la sagoo di la tiitaroo munoo mm-hmm. ko fay waaw moo tax man man loolu laay def sama son yëpp boo xoolee foo ma gis dinaa dugal ñaari tur war parce que dañ ma ko ji. moo tax merci ñoom ñoo ma def li ma doon moo tax parfois faw ma delloo leen jukkal. noonu un mois ah, fii euh, seen musique bi fi mu toll ci benn euh, ci benn wax rek noo ko gisee fi mu toll nii. waa ni ma ko gisee. man temps gisee ma ko nen de. coow li waaw coow man gisuma sax coow. maanaam ñu nekk ci ginnaaw ñooy coow. mais artistes yi xamante nañu te ku ci nekk xam nga sa mag xam nga sa pàpp xam nga sa ndijaay xam nga sa rak mhm. waaw te te xale munoo mag sa mag déedéet mukk sa mag moo la mën a mag rob rakk topp mag doom respecté bàyyi foofa toj loolu laa man loolu laay dund ñu ngi lay sant di la gërëm merci beaucoup amul ñooy sant ak ñooy gërëm waaw di ma gërëm di gërëm suma xarit euh, Laay Mbay mhm. kër gi immobilier sama xarit di jàppale El Hadj Keita di gërëm Karam Moto suma xarit di jàppale El Hadj Keita Papa Laay di ko nuyu Biba Sok ah Papa Laay talibé cheikh bi moom tamit day jàpp ci carrière El Hadj Keita ah doomu ndey Karamoto Biba Sok a ah, ah, El Hadj Ndiaye borom Ndiaye waaw ku bëgg la merci Karamoto sama xarit la moom ba ba ñuy boobu ci cant yi mm-hmm. ci cant la mm-hmm. boobu dara xewagul mm-hmm. ba yàlla def mi ngi liggéey di daan dooleem macha allah karamoto di bëggee Sénégal yëpp di bëggee ñëpp Sénégal yëpp borom Diaye moom di woy bi daal nga may tegal rek moom woy bi rek gërëm la bëggee naa kontaan naa man awma lu dul Medina mm-hmm. di bëggee waa Medina sama xol samay fans love you all